bismil qadimi munqizul anami rajaina wa qaidi zamani الحمد والشكر لأحمد القديم منور الزمان إرواء النديم يا رم الشيخ إذا اندق المصابيح سيقي سيوق ساقب المفاتيح lisaanu xaal dama dikkal fi ay bayit ma ñëw ci man ngir moom xajoo ci ay kayit waykat wayal ma cheikh ibrahima faal waykat waxal lu tax mu def abu rijaal si ibra ma sa ma wax sa mbir gàccal nga géej sa leer gu mu rot mu fer yaa jiitu woon la jiitu ñëw jiital ñoo yaa xam ne luy taalibe yaa tegtal ñu yaa xam le wala jiru ñëw xamal ñu yaa ñu joxe njal ñi yaa jubal ñu ustama faaqidalu min xeldul xolam minal qadiimi yaa ñu tàggale gëlëm siraaj yaa jolli ngir leeral xol yi géeju xekkango yaa di seetlu xel yi xalil nga yow xabim nga lil qadiimi bamba la sa sopp la yaay karimi bamba la ber wan la sa mbóot lu kenn gisul jox lu kenn amul xamal la luñ xamul sànni la xaw booba jugal di wàcc saxoy na alfaam taqul nga wàcce xaaban maqaama Cheikh Ibrahima Fall anil baraya an siwa borom jalal jalla jalalu qadimu rasuli aza kamalu sahibul usuli se ibra yow leer gi sarnaasi warnaas ba bëtti peeyi kursi defal ñi am murit dooni saadiq sete suñuy xol luñ faasiq yàlla ñu wan gannaaw qadim te yow ngir yaa qadimu lil qadim se ibra yow moo ko ibra faal moo soppoon Cheikh Bamba da daan xalam Bamba dënnam bay ba mu ibra faal moo soppoon Cheikh Bamba da daan xalam bamba dem dem bay bon mu saa boo ma saa tudd aw turam famam mu jug taxaw di tufudd ngir dàggoog sagam murit dëgg seeyal ci Seex Ibra yow da nga bëgg a Seex Bamba xëy fab la naan murit dëgg seeyal ci Seex Ibra yow da nga bëgg a Seex Bamba xëy fab la naan ku seeyul ci Seex Ibra sa cof jeex ku sa cof ka jeex tàgg doo neex a naan dañuy sant Seex Ibra ngir moo ñu wan guddul woon jëmmam ji ñu far sax gërëm